والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة راسجا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة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 أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم واتباع سنة نبيه المصطفى الكريم وأهنئكم بهذا اليوم العظيم يوم الفرح لإتمام شهر رمضان الفضيل نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما قضينا فيه من صيام وقيام وصالح أعمال هكذا أهل الدنيا أيام قلائل وما أسرع انقضاؤها ولا يبقى للإنسان إلا ما سعى وقدمه من خير أو شر قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فقد صمتم وقمتم وتلوتم وتصدقتم بشراكم رحمة وغفران بشراكم رحمة وغفران وإتق ورضوان فربكم رحيم لا يخيب من أتاه بقلب سليم عباد الله صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد ورد في الحديث للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الصوم لله وهو يجزي به وها نحن اليوم قد أفطرنا وأنهينا شهرنا الذي وجدنا فيه السكينة والطمأنينة حينما نقوم فيه إلى الطاعات وفعل الخيرات وتلكم الحياة الطيبة وتلكم الحياة الطيبة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالوصية عباد الله إذا الثبات على الطاعات ومجاهدة النفس والشهوات وإيصال الأرحام والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين وابن السبيل وبذل السلام الذي هو شعار الإسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر عما نهى الله عنه والمجاهد من جاهد نفسه وهواه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهي صاع أو ما يقوم مقامه من أغلبية طعام أهل البلد وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا رمضان في مرات وكرات اللهم أعد علينا رمضان في مرات وكرات مع الصحة والسلامة والعافية اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى متناد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لنا والقديم مبكو يغنى بوجي سنت يلا سبحانه وتعالى جولي سانغ بوتد بي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيترو ايما نيغا خامني نيوم لا لين يالا بولي في جي بيربام بي ak turi commission bi ñu ngi leen di dénk di ci jiital suñu bopp ci ragal yàlla ak topp sunna yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen ndokkeel bu baax a baax ci bés bu màgg bi bés bu mbégte bii ndax jeexal nanu woor weeru koor wéeru bu barkeel wéeru bu bari yërmaande ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na yàlla nangul mboolem li ci jaamu yàlla ci koor ak ci taxaw ak ci mboolem jëf ju rafet ñi nga xam ne ñoom lañu ko def ci biir weer wi nii nag mooy àddina bis bu néew bis yu néew ñëwoon na ñu ngi koy séentu wante tey jàll na loolu mooy firndeel ne loo séen agsi na wante lu agsi jàll na te noonu la suñu dund di mel démb dem na barke démb dem na tey ñu ngi ci kawam ëllëg yàllaa xam kon nag nañu góor góorlu bu baax ñu xam ne nit amul dara li muy am ëllëg lu dul lu mu dox fii ci kaw suuf wala lu muy jiital ci jëf ju baax wala leneen yàlla subhaanahu wa taala mu ngi wax ne ci biir alquran karim fa man yaamal misqaala darratin xayran yara képp ku def fii ci àdduna bii lu tollook pépp suuf mooy atom ci lu yiw ci lu baax incha allahu ëllëg soo gisee nga gis ko ci sa carnet wante soo defee safaan fii tamit nu mu génn a tuuti tuuti tuuti ëllëg soo demee ci yàlla dangay gis foofu si sa carnet te foofu bërëb bu rëccukaay la soo defee fi lu baax soo demee foofu nga gis yi nga xam ne yàlla mu ngi lay koy jox da ngay rëccu nga ne su ma xamoon ma dolli soo fekkente ne safaan bi tamit dangay wax ne eh su xamoon du ko def rëccu lu baax nag moo gën rëccu lu bon kon nañu góorgóorlu bu baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin woor nañu wéeru koor gi jog nañu ci naafila ci guddi ñu ngi ci jàngoon alquran ñu ngi ci saraxe ñu ngi ci jokk mbokk kon nag mbégte ñeel nanu ndax yàlla borom yërmaande la borom njéggal la te du neenal jëf ki nga xam ne moom la jëf jëm ci moom te du sa tas yaakaar kon yàlla na yàlla bañ tas suñu yaakaar bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi gannaaw loolu nag ñoom imaam Cheikh ba ñu ngi koy fàttali tout ñu ne koor am na ñaari mbégte yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax benn mbégte bi mooy timis sa timis jotee yaa ngi dog mbégte bi ngay am foofu foofu rekk la nga ko mun am doo ko mën a am ci feneen ëllëg yowmal qiyaamati nag mbégte googu mooy moo gën a rëy soo dajee sa borom ndax lépp li nga defoon fii ëllëg yowmal qiyaamati suñu borom moo la koy fay foofu ndax moom suñu borom bi nee na ak sawmu lii koor man maa ko moom wa ana ajzi bi man maa koy fayal sama bopp mboolem li waaye nit jëf malaaka moo koy yóbbu mais koor moom directement sa diggante ak borom bi subhaanahu wa taala kon nag tey ñu ngi nii jeexal koor gi ñu ngi macha allahu ay waa kontaan bu baax a baax ci biir weer wi ndax suñ fekkente ne ñu ngi doon jaamu yàlla dañuy am mbégte bu dee fajar yaa ngi julli da ngay kontaan parce que danga nga euh, xëddi ba pare léegi di xaar waxtu kontaan bu baax a baax tisbaar soo ñëwee di kontaan di dem ci jàkk yi wala di dem ci mbooloo yi di julli takkusaan naka noonu timis nag soo ñëwee mbégte bi nga ciy am macha allah yàlla rek xam ah tamit yaa ngi waaj dem julli géeye te bokk ak say mbokkum jullit ngeen naafi la boobu mbégte la jokk mbokk la solidarité la loolu nag mooy jëf ju rafet jëf ju rafet ñi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaamati moom la ñuy fekkee suñu borom subhaanahu wa suñu borom nee man amila wa huwa yenn falahu nahyiyannahu hayatan ba mu ne képp ku jëf fi jëf ju baax te nga nekk way gëm yàlla bu baax ndax ña am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi jëf jëf ju baax wante gëmuñu yàlla yooyu konte wuñ ci yàlla mais yow mii jullit su fekkente ni yaa ngi fi gëm yàlla subhaanahu wa taala di jëf jëf ju baax yàlla mu ne da ngay dund fii dund bu rafet ndax foo dem ñu ne la ah diw jëf ju baax la ñu di la teeru di la teral di la taragal sax bëgguloo kenn wax so demé fenn ñu diko jëw ñu di la ko jëwee wax dëgg yàlla diw ji ku baax la diw diw diw dee di ku baax day jokk mbokk day def ni day def nii fala nuhiyannahu hayatan tayyiba ëllëg yowm alqiyamat nak hayatan tayyibatan boobu fofu lay gëna nexé ndax dëgg ak da ngay dëkk ak ñoo yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yàlla neena wal najzanhum ajra ajrahum bi ahsani ma kanu yaamaluun lépp luñu daan defé fi yàlla dañ leen fulal fay leen fofu ndax kep ku bax yàlla la gëna bax suñu ndenkaani nak ñun imam yi nga xamne ñom ñoom ñoo nekk fi jëm ci yéen gital suñu bop moy sax ci jaamu yàlla ak topp yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam ak xex suñu bakkan ndax bakkan dafa for fo jëm bakkan bi dafa am tentation ci wax tentation ci jëf nit nak ñaari affaire rek mo am wax ak jëf yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam كم نيجي بند وانت بند وعي وقوله لين وفعله حسن من ترى بهما لا شك يستقيم وقوله صلى الله عليه وسلم لين يوانت يا محمد صلى الله عليه وسلم وقي نوي لي وقت وفعله حسن جفم جف جف جرفت كون نك كرو يونت بي صلى الله عليه وسلم تي وقت جرفت جف يونت بي محمد صلى الله عليه وسلم تي جف جرفت اك وقت جو نوي soo soobee yàlla incha allah yow da ngay tegu ci yoon soo tegoo ci yoon ëllëg yowmal qiyaamati da ngay bokk ak yoon yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ki waxoon ne man ahya sunnati kaana ma'i fil janna képp ku dundal sama sunna ëllëg yowmal qiyaama man moom ñooy dëkk ti ndenkaane boobu nag nañu bàyyi fàtte suñuy mbokk ndax isaalu rahimi moom lu am solo la lépp lu waaye def te fatte nga nga fàtte say mbokk sa def rafetul ndax nee na su fekkee fekkente dañoo ne diw baax na diw diw ndax diw baax na nañu dañ laaj ay mbokkam su fekkente ne mbokkam yi wax nañu dafa baax rek dafa baax kon nag nañu bañ a fàtte suñuy mbokk nañu dox nañu dox suñu mbokk lu ñu mun ñu defal leen lu ñu mun ñu dem foofu fekk si leen ziar leen lu ñu mun ñu wax ak ñoom même bu dee téléphone nga nuyu sa mbokk dafa koy dafa koy assuré de te da koy bégloo kon nañu ko def bu baax a baax a baax ñu bañ a fàtte tamit miskin yàlla yi ndax yàlla moo ñu may ñu xaw a taan leen tane tuuti wante du suñu cooba du suñu nguura ñoom tamit seen ñàkk du seen ceebore du seen nguura du seen bëgg-bëgg yàllaa ko doogalee noonu àddinam ndax ñaar rek moo am euh, positif ak négatif positif bi foo ko gis rek soo gisee mu neex négatif bi moo gën a moo moo ko tax su fekkente ne ñëpp amoon nañu su boobaa koom amul valeur su ñëpp nag ñàkkoon tamit su boobaa ñàkk amul valeur kon su suutalante bi kii moo tane kii kii moo tane kii loolu moo tax àdduna bi neex kon nañu góorlu dimbali miskin yi néew ji dool yi ak jërim yi ak képp ki nga xam ne ne gis nga mu ngi ci yoon yaa ngi ko mën a jàppale nga jàppale ko ngir yàlla su fekkente ne yoon bi baax la nag mooy ab ibnu ibnu sabil kiy tukki nga xam ne ne fu muy dem amul loraange amul coono nga mënu koo jàppale ngir yàlla nga jàppale ko wala nga gis gan gan bi nga xam ne du indi fitna du indi problème nga mën a koo jàppale ngir yàlla nga jàppale ko ngir yàlla wa basli salaam te nga wasaare jàmm ndax asalaamu chiaarul islam mooy symbole l'islam soo gisee lislaam l'islam ñu ngi koy wax rek jàmm jàmmoo tax soo nee nag nit man nitu l'islam laa nekkoo nitu jàmm xamoo sa diine kon nanga nga ñu góorgóorlu ñu wasaare jàmm buur bi subhaanahu wa taala mu ne udxulu fi silmi kaafa na ngeen dugg ci ci jàmmoo ak wasaare jàmm ci fépp fu ngeen nekk bu leen xaj ak seen wala tattabi'u xutuwaati cheytaan bu leen topp cheytaan ndax te soo toppee cheytaan njuumte rek ngay am innahu lakum aduwwun mubiin ndax cheytaane suñu noonu la depuis démb suñu bàyyi aadama ak suñu maam xaw yaay xawwa depuis démb ci aljanna Euh, euh, iblis cheytaan seen noon la bu tey suñu noonu la ndax moo ñu indil mbooleem féewalu ak mbooleem juwo kon nag nañu góor bu baax a baax ñu xeexal ak pour wesaare jàmm ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam laajoon na ko jullit dëgg naka lay war a mel mu joxe ay qualité mu ne al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi man nag dama ko tenk rek mooy jullit ku bari jàmm rek mooy jullit ku bari jàmm rek ci sa lammiñ nga wax jàmm ci sa loxo nga def jàmm si ñu tànk nga dox jàmm soo waxee jàmm defee jàmm doxee jàmm keneen kii def ko ñun ñëpp nekk ci kaw jàmm soo ñu nekkee ci kaw jàmm yàlla yërëm nu ndax yàlla nee na subhanahu wa taala walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard soo fekkente ne waa penc yi gémmoon nañu yàlla ñu ragal ko mboolem xeetu xéewal bu jógee ci asamaan danaa ko wàcce ci ñoom mboolem xeetu xéewal bu nekk ci suuf danaa ko génn jëm ci ñoom su fekkee nag gémmuñu yàlla ragaluguñu ko même sa xeewal yooyu ñëwee duñu ko mën a jëriñu fitna la leen indi problème la leen indi ndax ñàkk gëm gi ak ñàkk ragal bi kon nag ñu góorgóor lu baax loolu mooy affaire bi yëpp mooy ragal yàlla ak jaamu yàlla laaj nañu ko gàddaay gàddaay gàddaay bi ñu wax lan Euh, réalité gàddaay gàddaay bu dëgg-dëgg bi mooy lan mooy gàddaay dëgg-dëgg-dëgg mooy nga joxe ci lu jógee ci lu bon dem ci lu baax loolu mooy gàddaay dëgg-dëgg wante lu nekk rek nga takk sa bagage rek dem gàddaay déedéet gàddaay dëgg-dëgg mooy nga joxe ci lu ci lu bon nga dem ci lu baax loolu mooy gàddaay dëgg-dëgg mu ne jihaad bi ñuy wax jihaad bi ñuy wax kenn ku di wax jihaad jihaad jihaad jihaad surtout ma tey islamiste islamite jihaad jihaad lan mooy jihaad dëgg-dëgg mu ne jihaad dëgg dëgg mooy ki xeex ba kanam ak bëgg-bëggam waaw du jihaad li ñuy xalaat ni nga jël drogue nga naan sàngara walla nga dugg ci leneen dem faagaagal sa mbokkum jullit nga ne jihaad ngay def jihaad boobu wax dëgg yàlla gis ñu ko ci téere ndax allahu akbar su demee rey allahu akbar allahu akbar yëkkati loxo mu ne allahu akbar allahu akbar boobu wax dëgg yàlla jaarul yoon waaw man damay wax léeg-léeg àdduna bi nu mu mel tey ak ay ni nga xam ne dañoo wax jihaad jihaad wala leneen ak leneen loolu am na solo wante su fekkee ne demoon na beneen approche moo gën am solo xaalis bi ñu def ci ngànnaay yi ak coono bu ñu ci daj suñu dajale woon xaalis boobu ñu fexe ñu am projet agriculture wala mooy projet développement rek sa booba ci lay gën a neex ndax koo jox ñam koo jox naan koo jox dëkkuwaay koo jàngal xam-xam loo ko war mu dégg mais soo jëlee fetet jël bomb jël kalachnikov lu kenn xamul su booba sa waaraat bi du mën a jaar soo jaaree tamit soo jàllee tamit du yaa yaatu ndax faat bakkan rek moo ci nekk kon nag amul dara lu gën a am solo mooy def lu baax wax lu baax dox lu baax ànd ak say mbokk yi ji lu baax soo boobaa nga xam lislaam diinu jàmm la ndax ñoom imaam Cheikh ba ñoo wax ne islaam tur bi ñu ngi koy xotti ci baa baatu assalaamu assalaamu tur yàlla la assalaamu mooy ki bari jàmm ki am jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm mooy yàlla subhaanahu wa taala te yonent bi sallallahu alayhi mu ngi wax ne te xalaqoo bi axlaaqillah na ngeen jikkoo jikko yàlla kon soo koy jikkowoo jikko yàlla na nga jikkowoo jikko yërmaade ndax ci 99 noo yi ngay dugg delloo foofu la jikko yàlla ne nga nekk rahmaan nga nekk rahim nga nekk karim nga nekk salaam nga nekk latif nga nekk sabuur waaw sa booba da ngay am qualité yu baax nga bari yërmande nga bari jàmm nga lewet nga bari muñ sa boobaa dangay dox dox jàmm te nga woo jikku yàlla te mënta xalaqa bi data min ha daxalal janna jikku yooyu soo ci jikkuwoo jik benn jikku nga sax ci nga def ko ngir jëmm yàlla nga dugg aljanna kon nañu góorgóorlu 99 noo yooyu ñu seet ci ñi nga xam ne mooy noot yi noo yi nga xam ne moom la ñu mun a jikkawoo mu ji jikkawoo 99 yëpp mun nga ko bu budul allah allah nag da koy gëm waaye nga def sa xol nga def ko sa xel nga def ko sa xalaat nga boole ko ci sa doxalin soo boobaa nga wàcc nag ci tur yi nga wàcce ci rahmaanu nga bari yërmaande nga wàcce ci karim ko bari teddaange nga wàcce ko ci latif mboolem tur yëpp nga kii yeneen tur yi nag ku mel na ne mutakabbir mutaqim masil boobu nga delloo ko sa bopp mutakabbir mooy rëy yàllaa rëy teeku rëy yàlla dafa lay toroxal soo bëggee jikko woo jikko boobu nag mooy da ngay rëy rëylu dem ci fu foo warul dem da ngay rëy rëylu wax ñi euh, bañ wax li nga xam ne moom nga warul wax c'est-à-dire lépp lu safaan nga rëyal si bopp bañ dem foofu soo fekkente ne masil la mooy nga toroxal sa bakkan nga noot ko su fekkente ne muntaqim la su fekk bakk bakkan bi wala sa cër yi su demee bëgg dem safar nga piniral nga pinir leen noonu ngay jikkuwoo ci yeneen jikku yi ndax ñetti tur moo am aljalaliyaat wal jamaliyaat wal kamaliyaat jalaliyaat yooyu neexul a roy mais dañu koy jikkuwoo jamaliyaat yooyu dañu koy roy kamaliyaat yooyu dañu koy mbubboo ñoom ñett yëpp ñooy ànd loolu mooy jimma ji ak xol bi ak ruux bi jëmm ji ak xol bi ñoom ñoo bokk te xol bi mooy seeni président lu waaye def ci cër yi xol bi mooy xalaat su ko xalaatee jox ko xel mi xel mi puus benn cër cër boobu dem def kon nag cër yi ay soldaar lañu mais seen commandant mooy xol bi seen capitaine mooy xel mi wante nag seen général mooy ruux bi loolu moo tax ñii nga xam ne دانيو ديف استغفار ديف صلاه النبي ديف لا اله الا الله اللهم صح طريقه تجار مي لول امنا صلو ندخ استغفر الله استغفر الله مو انترتينير تشيري تي بيتي صلاه النبي مو انترتينير خولبي لا اله الا الله موي موري روحو بي روح بي ديلو فمو جوغي وون لول موي nga nek nit complet so nek nit complet nak moy al insanul kamil ñu ne al insaanul kaamil nag naka la ñu koy mandargale mu ne al insaanul kaamilu alladi yuti kulla di xaqin xaqahu mooy nit ku nga xam ne mooy nit complet mooy kenn ku ne nga jox ko cëram soo baaxee nga jox ko cëri mbaax soo baaxul tamit yow nga baax nga jox ko sa cër noon ngay mën a nekk nit al insaanul kaamil kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi farataal ci jullit yi suñu wooree ba pare nañu génne mudum koor imaam Cheikh ba wax la leen naka la ñu koy defee tey ñeen xam ngeen ko kon nag muddum koor nañu koy génne laata ñu julli ñu ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla na yàlla may fekkee déwén boo ñu génne waat ay muuru koor ci taam ak ci waxtoom te yàlla nangu na ko bi jaahi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ku wooru wéeru koor boo weer bi jeex nga teg ci gannaaw julli bi su tey moom kenn du xoor ndax def xaram mais gannaaw tey juróom benn fan nga teg ko ci weeru koor gi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 فإنا نسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا بجاه المصطفى الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة مطمئنة إلى يوم التناد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين